ñëpp waxee moom mais kii mooy su ma yëf Babacar moom ma njëkkat bu may wax sit Babacar moom ma njëkkat taral micro ah kii nu mu tudd stade Ligue TV ñu def lu neex non booba Ligue TV yaa ngi koy toj. yow foofu fekk sax dañ koy tëj. mais Babacar nuyu naa siyaar la. maa ngi lay fay aadama ci kanam nga leeral rek ndax yaa koy leeral. waaw ko leeral naa ñu kanam nga leeral waaw ak wuli. jël bi xanaa dina war a leer de. non lépp leer. ba fii amul ba pat de bul fàtte de yaa juum de. da ngaa naan de bu ngeen xeexee bu ngeen waaw ci kanam rek. mais moom meeru lay laaj nga ne ko boo ko moom dana meer la léegi. meer la bëgg a doon boo meer laa daan. waaw bu soxlaa maire yàlla tekki seen tiir bi. waaw defanteeg moom yu baax. <laughs> jeex na. Maodo da nga koo ñamal ay ay ay. affaire yu rek bu oyofalee rek mbir mi oyofal ko bu teengaralee ba teengal ba mu teeng. kon ba ci kanam. ci kanam ñu leeral. am nga jàmm. ana waa TFM. ñu fi. ñu si jàmm. ñu ngi jàmm waaw. naka télé ba. mu neex. mu ngay neex. waaw. aadama Diouf nee na fii feneen ngay doon maire sauf géew bi tey. maire maire maire yoon. maire ci géew bi. waaw. maire Réfane. maire Réfane waaw. Adama mënu ci dara. dara mënu ko ci. yàlla da ci mën a teel na ma. combat bi mën gaaw. waaw day gaaw nag man man mënuma bëre comme yii nii man bëre bu gaaw parax parax parax. kon tey doo ko sarax saraxee tey. noo bëgg ma def. dama lay kay loo loo noo nar ma def. non dama laaj noo bëgg a def. teema koo parax paraxee rek. ah. teema koo parax paraxee. nga parax paraxee ko. waaw wala waa ma tey ngeen jóge fi. waa ah seetal lu dal sa xel. da nga ñibbi te war ñëw. war war a ñëw bëgg a bu ñëpp meewoon a teel ñibbi. bu ñëpp meewoon ni man. ba léegi lamb bi na. waaw ah, yow da ngay dal di dóore rek mu jeex. ah Philippe pare fay ah, na ak ñëw na Leewtoo TV ndeysaan ndeysaan cey Adama Corona dee na Corona dee na o maayi jeex na o banta Corona jeex na corona dee na corona jeex na merci sa corona dee na corona dee na suul lañ ko corona dee na chaque jour ñuy arrêté ndeysaan bii combat yaakaar mu de xulle baax na avertissement Pape Yekini wala lu xew Pape Yékini moo leen wan ginnaaw Obeuly moom ngeen jàkkaar lool mu ngay kabar moom Ibou Ndiaye Obeuly Ibou Ndiaye Diofior Ibou Ndiaye Parcelles mbooloo am na lu mu sànni mu jël adversaire am Ibou moo gën a ñuul yor ngemb bu xonq bi moom ngeen jàkkaar lool mu jiital pied droit Pape Yékini ngi moo leen wan ginnaaw moo xees wala moo gën a xees yor ngemb bu weex jiital pied gauche tey di dimanche 10 octobre 2021 ci Equivox TV. ñaari mbër yaa ngay lewaatoo ñu ngay lewaatoo ñu ngay lewaatoo dara xewagul cey loolu Obali Pape Yekini Khoulé ñu ngay lewaatoo mais nama naa la ci loone ondu la fu ñaari mbër yaa ngay lewaato ñaari mbër yaa ngay lewaato prési maa ngi lay ziar ba ngi si jàmm jaajëfati jaajëf Maysa Ndiaye vice président sarsa de lutte avec frappe mu ngoongu borom mbuur e lu xew combat bi dara amagu ci de Pape Yekini nag ah adversaire la de walla luy xew ñaari mbër yaa ngay lewaatoo door na ko eh Ibou Ndiaye jël na droite bu dal <laughs> wallahi li du lambi simple de Ibou Ndiaye droite boobu nga jël dal na de Ibou Ndiaye moytul Pape Yékini de ah, baax na droite boobu mu la door dal na lool sax Ibou Ndiaye ndax xeeb na te kii pied gauche tegal pour nga dem songi ko day jafe de dara xewagul de xulle dara xewagul de gis nga Pape Yékini daa ni moo dàq xeex Ibou Ndiaye mu ngi koy dóor Ibou Ndiaye jël na ko daan na ko aawoy ah amul coono daa bëgg mu xeex mu jàpp ko daan ko amul coono xoolal lii amul coono jëlal xool Obeuli eh woy waaw waaw wallaay Obeuli ngoog oh. Adama Diouf wuli bañ na de wuli koy door wuli daan na Adama Diouf Adama daan na wuli Adama daan na wuli Adama daan eh eh Adama daan na wuli xule door na ko waaye terewul rek ay waay wuli daanu na waay la fitir meer da daanu na waay ay waay lii moo neex oh ñu ngay xeex Wouly ngay xeex ak moom ñu ngay xeex mu mel ne combat bu métti ngeen na non neex na mais gars yi dañoo teel a bàyyeeku waay waay gars yi dañoo teel a waay nii laa demaat baaxul ma demaat nii mu daanu waaw ah, yooyu doxul quoi. dootuma jël nii da ngaa bëggoon bëre bi gën a gaaw. gën a yàgg mu tax mais wuyu ma. Ah. jëloo ay ku ci combat bi. non non ku yooyu mënu ma dal bilaay walaay nii lay def bopp bi di ko xool. waaw di sukk benn om bi di ko xool bu noo demaatee delluwaat. dama mën a bëre moo gaañu ci yéen ñaar man gis naa ko naaj. de ma dama ci ma seede dimbale ma de doo ma ci ma seet sama xarit nga la doo ma ci ma ngi nii doo ma ci tous doot ma ngi nii damaa wér léegi dootuma jël waaya waaya yi koo bëgg a jël jël dootuma jël waaya waaya yi du ko def dañ may sonal quoi a koo ci porte ay seconde est-ce que affaire mot na une minute mënu loolu waaw mënu ko kat abit da mais maa ngi sant maa ngi sant yàlla yàlla sunu borom laay sant ñëw naa entraîné naa ñaan naa bëre naa yàlla may ko na ko am na ko ji. mais benn instant amoon avantage ci combat noo def avantage boobu rek man tey sa ñëw ñëwoon seen disons bëri ak moom parce que ñëpp dañu waxoon ne moom dafa bëre. moo tax bi ma songee rëcc naa ma ma woy merci beaucoup ma bëgg ñu contact bi ñu bëre mais nag. mais bi laa ma ko. non boobu boobu dañoo fo rek. mais wuyu ma wulli wulli forme bi nga indi tey forme bi. entraîné rek. mu mel ni combat bi dañoo yaakaaroon da ngay caaxaan mais danga nga entraîné carrément. bu ma gis xam na tey entraîné naa boo xoolee ni mu rek aaji mbay da ko sori ko. song na ma ñetti yoon defe naa daanu ma mais sant yàlla. mais yóbbu nga ko Ardo daa mel ni de ci xeex bi. daa yóbbu kenn waxatu ko kawoon na